ndeysaan boo xombal moom lañ jàkkaar lool dar ñu woon ginnaaw ndeysaan nee naa la xombal moo ñu woon kanam noonu booy dar moo ñu woon ginnaaw ndeysaan doomu ginnaaw raay bi ndeysaan abi bi sifle na ndeysaan mbokk yi ñaari xale yaa ngi leeto waaye ba soo yantoona xar diggante xabal ak jaasoo jaasoo ñu Darso Darso bu xam sa cosaan moom ngay am noonu moo ñu woon ginnaaw le poulain Zoro Zoro moo ko toogal see Darso mi ngi jàkkaarloo kan mi ngi jàkkaarloo Boy Xombal Darso Boy Xombal Boy Xombal mi ngi jógee kiri Caaroy Ndigal Zarko Boy Xombal waaw waaw Xombal moo jàkkaarloo ñun moo ngi moo ngi lu vert li moo ñu wan moo ngi moo ngi lu weex le poulet de Zoro Zarko Zoro moo ko toogatee booy xumbal Cheikh Mbokhol Baye Mandione Baye Mandione numéro 2 moo ko toogal siège attention jëli na ko sarse na ko Darso Darso Darso attention takk na ko ci suuf eh Darso attention booy xumbal Darso yóbbu na ko ci suuf jekku na ko mi ngi dugal ay kaw Darso mi ngi dugal ay kaw attention dal na ko Darso yee Darso daan na ko Darso daan na ko Darso daan na bi rëy na waaw bi wane ci na boppam dafa ci na mani nam Darso daan na ko Darso daan bi rëy na jëlal ci wet gi Zoro mooy papay xale yi jëlal Zoro jëlal Zoro jëlal Zoro jëlal Sada jëlal Sada du man du man barki alxuraan yàlla la billaahi waxoon naa leen bu yàggul dara damay ñëw parce que daam am si lu ma mu war a ñëw maay waaw moo tax ah waaw ñëpp bëri dañ ma du ma xeex damay xeex nag gaa mais bëri laa mun waaw. fan nañ ma jox samay morom ay caatu ngéwél wala kii booy kii waay booy bi dañu ñaaga bu nañ ma ko jox barke sëriñ Baam non loolu waaw sëñ Fallou rek